ñeenti catégorie yooyu ma fa ne génnee nañu catégorie bu bees té conseil constitutionnel du defar loi. d'accord alors yéen opposition bi def ngeen seen rassemblement bu reuy di da ngeen di bokk ak nu mu mënti mel da ngeen di bokk le président aussi yëkkati na kaddom ca bitim réew wax ni élection mom faaw mu am. Hmm. est-ce que ci climat bobu nonu mën nañ ci am ay élections yu apaisé ba man ni ma ci jital moy euh may àgg ci ci li nga xamné wax nga ko. Hmm.

te démocratie nak ku ko tudd boy taxawal ay élection ni ko tubaab di waxé dañu wara inclusive ñepp a bok kon da ngay yaatal waaye do xatal mom nak mi ngi ci xatal bi mu génnee parrainage ba légui té dina ci dess est-ce que nekkul ci logique am tamit monsieur le premier ministre moom fi waxam que ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. yéen a ngi xaar muy muy muy muy seddal ak ak jënd glace. wa mais wa mais dafa xamul.

ñaari weer yaakaar naa mu am béréb boo xam ne dafa doon wax mu ne bett nañ ma waaye du dootul amati loolu. mais est-ce que yéen tamit da ngeen xam ne da ngeen a jékki woon euh, peut-être que opposition bi dafa jékki woon ci mars yi mu bëgg a defaat encore beneen forcing yéen tamit est-ce que amu leen aussi tamit lu leen di reprocher quelque part. non amul amul forcing amul forcing ndax. Euh, lii nga xam ne nii euh, opposition mi ngi koy laaj. mooy élection inclusive nañu yaatal ñëpp bokk nañu doxal yoon boo xam ne ñëpp a jaar nañu doxal yoon booy xam ne ci ku ne lay lay lay tegu loolu rek la du leneen. qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire parce que ñu ngi dégg ay religieux ñoom dañuy sol seen dànk seen seen seen dàll pour ñaari parti dajaloo ñaari parti buñ dajaloo quelle sera la teneur des discussions d'autant plus que le président Macky Sall moom nee na élection day am ca date bañ ko jàppee man daal bu fekkee ne Macky Sall na ba ci man na ma loo may conseil li ma koy wax moy élection législative ñu donne des élections inclusives munoo ci génnee Yewwi c'est pas possible mënut a sinon ana suñu démocratie Yewwi wane na né am na doolé woné na ko ci local yi ñu bëgg dugg ci législative né ne doo ca bokk

Si assemblée nationale ña fa pas représenter le peuple kon bu ci nit yi bu ci erreur matérielle fu am am nangul ko diw nangul ko diw bu boobaa nag ñu daal di toog mais bon erreur matérielle am na nañ ko corriger waaye benn erreur ci benn tour nga génne liste lëmm ne yow doo bokk mais loolu loolu du yoon man da noonu la ko gisee da topp yoon waaye am itam loo xam ne danga koy nangu boo ko nangulee sax dañuy xam ne yow am na leneen looy looy looy looy loo bëgg loo waaw <laughs> même si droit bi waxuñu ko foofu dañu war a moraliser rek rafetal bàyyi ñëpp demandoo élection loolu loolu nga jàpp non waroon nañu jàpp ne erreur matérielle am na bu boobaa ñu corriger ko daal di avancer fépp foo xam ne gis nañu ne erreur matérielle amoon na fa nañ ko corriger rek de delu ci lo xamné li lii day adapté euh dafa am lo xamné ne opposition la. Mm-hmm. am lo xamné ne Macky Sall la. mbëbëtu Macky Sall moy na wàññi candidat opposition Mana am majorité assemblée nationale ba nopi bu fekkee né sax opposant dugna moun an opozan yo hamne doun monson al. Lol. Lol ou li ben. Mwen betou opozan ak, opozisyon, a, man tili maya karon, moun, sistemu makisal noun kodanel. Bou moun genne mouk ti eleksyon legislativi, te indiwat majorite, babok, nyou dugel ay depute opozisyon yo hamne, doun monson al, moun an fresel asambleye.

attention y est, Macky Sall génnee euh, galgal génnee njuuj de dañu Khalat, Banya toog xalaat bañ li opposition c'est ndax ag, nañ te banya Desrekti, des rek ci euh, génnee nañu diw kon nañu itam ah bu euh, sama xalaat man de mais du xalaatu walu du xalaatu. yaa ngi wax sànq insulte yi maanaam xeex yi à l' assemblée nationale mais même avant assemblée nationale loolu la ñu nemmeeku vous avez donné la parole à Serigne Abdou Bara Dolly